والصلاة والسلام على المروي عنه قوله إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين وعلى آله الأتقين الأكرمين وأصحابه الغر الميامين وخديمه ومن تبعهم إلى يوم الدين وفي رواية شبه مطابقة إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وروايات بصيغ أخرى في هذا الصدد وبألفاظ وأسانيد مختلفة وبمعنى واحد أو بمعان متقاربة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 di leen jottali ci ndigalam kàddu yi di ko tàmbalee sant sunu boroom mi defal fekke ak tal di ndokkeel jullit yépp di ndokkeel sëriñ bi xaasatan di ko ñaanal yàlla mu gën ko sàmm aar ko kàttanal ko mottilil ko mboolem naal yi إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير di fàttali mbokk jullit yi yépp ne weer wi passé la chance la ngir gën a jege yàlla ak gën a sori safaan sunu boroom farataal ci nun woor ko ci laaya bi ñu jàngoon ci gannaaw di laayab yaa ayyuha lladiina aamanu kutiba aleykum siyaam ngir nu am taqwa te sax ci taqwa di lo xamne ku ko am am lépp ndax day may xam-xam wattaqullaha wa yuallimukumullah di may wërsëg wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haythu la yahtasib day defal jambi bi fu mu jaar ba génn ci njaqare adina ak àllaaxira بنابي ورسالة ورسك ومستطاق خلاص. دفعك أي برم أبجاء فندل تي ألك يجعل له من أمره يسرى. دتخذ الله فرالك أي بكارم ريل أك بايمت لول ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ak yeneen ngëneel yu aju ci moom ci wàllu musle ci sawara ak di jëme ci ajjana ba tax na mooy nattukaayu ngëneel ngëneel wari su ko seete ci gën a baax ay waajur gën a bari wërsëg ak ëpp xam-xam ak ëpple lu mandi doon ak jiitu ca lu dul ak ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ku la gën a ragal yàlla ku ku ko mën a jur ak ku la mën di jur loo mën a am ak loo mën a am ak lu mën di ñàkk moo la gën fa yàlla bu dee ci nit ñi nag loolu mën naa bañ am muy weer woo xam ne sëñ bi mag bi bàyyi woon na ko xel lool fonk ko fonk lu ko lool jàppewoon ko gan gi gën ci gan yi di gan goo xam ne lim àndaale lépp mbégte la akuk dolliku di gan goo xam ne liñ koy ganalee mooy topp yàlla akuk njub ak taati wasadad kon noo ngi jottali ñëpp digal li sëriñ bi jëme ci ñun taalibe yi ak laabiire gi mu jëme ci mbokki jullitam yépp te mooy nu gën a farlu ci rafetal sunu diggante ak sunu boroom ci xeeti jaamu yépp niki julli saraxe joxe aw ñam jàng alquran ñaan jéggulu rawatina woor nga xam ne weer wi mooy wi mi nekk farata yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa wax ci lu rëy ne man saama ramadaana imaana wahtisaaba gufira lahu ma taqaddama min dambi ku woor wooru koor te yàlla rekk tax ak sàkku tuyaaba jéggalees ko la jiitu ci bakkaaram ci kaw nag muy moytu bakkaar yu mag yi tuub leen te bañ caa dellu ki ne man de lu ma sàggan sàggan koor gi moom dana fexe ba li ma daa def wala yi ma daa def kenn du def kenn du gis ma def ko ci kooko bu yaakaaree ak njëgal mi ngi nax boppam ndax tuubam sellul tuub ga dafa ànd ak fas delluwaat ka ca fas yéene wu ca delluwaat koor ak lu dul koor kooka sañ naa yaakaar ak a séentu ak njéggal ak sax lu weesu ak njéggal te mooy bu yowmal xiyaamee ñaawteefam yépp yàlla wooteel ko ko aw yiw ndax yàlla ko dige te nag inna allaha laa yuxlifu lmiaad moo ne illa man taaba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanat wa kaana allahu gafuran rahima te mi ngi ko wax gannaaw bum tëkkoo ñiy def yenn ci bakkar yu mag yi ba wax lim leen di xaare yaakaar nag warul di tàggoo mukk ak ragal ndax ragal mooy tax sax ci njéggulu te jéggulu ak jaamu yàlla la giirug dund lay doon deesu ko weesu mukk buñ ko doon weesu yonente bi gën a yeey ci weesu ko te musta tàggoog jéggulu giirug dundam te mooy boroom may yu réy ya ca inna fataxna laka fatan mubina ba ca wa yansuraka allahu nasran aziza sëriñ bii nga xam ne moom la defoon roykaayam kaayam di ko liggéeyal ba yàlla faye ko lii mu am nu xam ko te liñ xamul moo ëpp ni ni doomu aadama lotte ci lim cant yim sant ci may yi ko yàlla may faye ko ko ci biir xasidaam yi ni la lotte ci lim lim ci jégglu yàlla kon ñun taaliba yi kenn waru noo raw ci jégglu ak jéggale ak suturaalante ak dimbalante ak baye xel ci lay bi di wax ne sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa 'iddat uiddat lilmuttaqin alladina yunfiquuna fi sarra'i al walkaadimina wal walcaafina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin yàlla nu yàlla yombalal jox weer wi akam tam nangul nuko noog jullit yépp nu fekke ko at yu bari ànd koog tal ci teewaayu suñ kilifa gi ak kiifay jullit yépp ci barkeb sëriñ bu mag bi kul amin wa antum bi kulli xayr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah طول لنا عمرنا الصحيح لنا أبدا وهب لنا الرشد والتوفيق. Okay.